ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez-vous wala sax créer alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na tey Babacar fi ñuy waxtaan ak yow football ku ne xam na ni bëgg nga ko ba reporté nga benn benn match fële ca Fouta génération 2002 kenn ci ñi nga xamante ne tey bëggaloon na Sénégal yëpp di di Pape Bouba Diop génn àdduna barki dem yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana 2002 lan moo la gënoon a marqué ci moom ak équipe bi lan moo gën a marqué lan moo la gënoon marqué ci équipe boobu noonu lan nga mën wax daal ci Pape Bouba Diop. ak équipe 2002. waaw Lamine dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek loolu moom suñ borom bi xam nga parce que ku ci juddu da dee lu ci tooy da wow loolu du mën a ñàkk yàllaa ko def ñu ñaan yàlla rek képp kuy dem yàlla nga dem fekk fa njëgalam ak yërmandeem barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñuy ñaanal Pape Bouba Diop ah, yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana parce que tamit li ñuy wax héros national ko parce que la li ko waral mooy dafa dafa jaar ci yoon su ko ne xam na ne fa mu départ muy Rufisque mu dëkk ñëw jaraaf jóge fi dem ba Suisse joge Suisse ñëw ba Lens mujje Angleterre ak ay Grèce yooyu yëpp di parcours boo xam ne kon moom vraiment li mu doon def tamit yàlla mayoon na ko ci macha allah ah wax yàlla ku ne gis na ne mondial 2002 suñu diggante ak France équipe boo xam ne Lamine la ca nekkoon kër ci meilleur buteur yu jëli championnat yu am niveau Trezeguet meilleur buteur Italie et si yaa ngi déglu ma la nekkoon ci équipe de France booba Thierry Henry meilleur buteur Angleterre nekkoon fa Djibril Cissé meilleur buteur France nekkoon fa nga ne déet na waaye ñoom Zinedine Zidane ñoom ñëpp newoon fa Sénégal ñëw ak ay joueurs yoo xam ne ñëpp France lañ nekkoon Lamine ñu fin football ak ñoom te 98 la ñu organisé coupe du monde ñoom jël ko devant le Brésil ñu ñu ñëw football ak ñoom match bu metti ñu gañe leen ci bit boo xam ne Bouba Diop mii génn àddina tey moo ko dugaloon defe kon kooku ci paasu El Hadj Ousseynou Diouf kooku héros national la parce def na loo xam ne histoire da koy bind coupe du monde bi Sénégal njëkk a participé Sénégal bi ci njëkk a dugal bii mooy Pape Bouba Diop kon defe naa kooku tey maanaam taxawaayam ci réew mi donte âge at yi gàtt na néew na mais wane na boppam ci 42 ans kon yàlla na ko yàlla xare aljana jéggal ko barke yonent parce que tamit wax dëgg yàlla ci loo xam ne mën nañ ko moom ci liñ que génération boobu dañ ñu révélé la maanaam ci biir terrain bu ci duggee day ñàkkante mais ku am yar la daaw ku dégg ci dara te Lamine nit ki dina nañ ko booleeg lépp sànni ci àll ba waaye ab yar pour ñu bëre la ak moom sànni ci àll dina jafe te ku yar woon la macha allah ku discret woon tamit quoi. yow boobu mu dugaloon contre France dafa mel ni bégloo woon na Sénégal yëpp de. man ma lu tax Abdoulaye Wade mi jiite woon euh, euh, jamono yooyu génn moog premier ministre ba Mame Madior Boye di manifester wu ci dëkk bi population bi yëpp génn sénégalais yi maanaam addina bi ñëpp maanaam ñi xamuloon Sénégal bis boobu dañoo xam fuy Sénégal parce que match d'ouverture Sénégal France France moo xam ne moom moo jël coupe du monde ñu indiwaat coupe bi ñu war ko final ñu war ko football Sénégal ñu war ko football ak moom Sénégal boo xam ne dafa bi loolu Lamine Kera waxuma la réew mi ñëpp a génnoon parce que loolu exploit la woon boo xam ne nii wax dëgg la lu kenn xaarul woon la parce que outsider boo xam ne dañ ne woon noo kii saako lañ koy dóor parce que dégg nañ li français yi doon wax ñu ñëw pattal leen ba pare football ak ñoom match bu dëgër a dëgër a dëgër te ñoom Pape Bouba Diop ñooñu ak ñi ca nekkaloon def ci lu metti defe naa kon defe naa loolu moo lay wan ne kon kere ñëpp génn nañ Lamine te génn daa jotoon. Sénégal nag dafa mel dañu ñeme def yi euh, Babacar seen jom dafa bëri parce que foofu jom jom moo tax ñu gagné France football lu leer gagné leen avec la. waaw parce que Lamine loolu suñu dara la ne parce que am réew su fa Cheikh Ahmadou Bamba nee maam El Hadj Malick ne fa maam Limamou ne fii ci Yoff gii maam Abdoulaye Niass ak maam Baye ca Saloum maam bu kunta njaasaan ak ñoom amari ndaak sek waa cene ba yooyu ak ñeneen ñoo xam ne nii lamin ñu ngi ci réew mi xam ne ñoom ak tubaab bi la woon tubaab bi leen du ngeen fi sampe lii ñu fexe ba samp ko ah, ñooñu defe naa réew moom boo fa dëkkee ah Lamine nag wax dëgg defi moom looy bëgg di lay doon. dëkk jom nga doon. waaw ci moom lañ fi fekk même demee ca buur ya noonu la demee ñu boole suñ mbokk chrétiens yi nekk fii tamit di ay nitu jom ah defe naa kon moom réew nag lamin boo fa dëkkee nag defe naa ne moom jom moom war nga koo làmboo te defe naa ne loolu moo am ci Sénégal waaw. ok loolu am na solo léegi Pape Bouba Diop génn na àdduna yal na ko yàlla yal na ko yàlla yërëm moom mbooloo mu jullit ñu ngi wax vendredi lay ñëw ban taxawaay la ci sénégalais war a am parce que tamit yaakaar naa ne jullit bu nga mbooloo mu bari gunge la a am président la république bu loolu weesoo ma denc ko ba pare maanaam nan la ko a delloo njukkal parce que am nañ stade bu bees bu ñuy tabax est-ce a ah bien sûr maanaam ni ko war a delloo njukkal mooy ñaanal ko yàlla gunge ko ci kër ak dëggam parce que mbooloo mu bëri ci armée defer naa ne njéggal danañ ko cay xalaat te damay dégg suma papa Maxime Bergane mu doon wax ne bu armée maanaam bu nit faatoo bu nit faatoo armée la bëri nit ka a baax waaye bu sigil ndigaale bëree ña mu bàyyee baax te defe naa loolu mënees na ko xaar te luy am lay doon ndax loolu moom wane nees ko te ñi ko jege wax nañu mbaaxam ak i mbokkam nam leen daan jàppale ci lépp lu mu mën a doon parce que yàlla moo lay booleeg ñoo ko neex kon defe naa mar ñu ngi koy xaar ñu jégal ko borom ñaan yàlla jégal ko waaw tombe nag moo waral ay gaaf Lamine xam nga comme yàlla def na mu génn àddina te nekk sénégalais boo xam ne def na loo xam ne mooy sénégalais bu ko njëkk a def mooy dugal coupe du monde ci match d'ouverture Sénégal France coupe du monde 2002 tey ñuy tabax stade olympique fële ci Diamniadio mu ne la ñu koy tabax ci norme internationale stade yi am defe naa tey nag ah Macky Sall nag tuddee stade bi Pape Bouba Diop la war a def te su ko defee nag ah benn sénégalais du ko contesté nag loolu moom lu am la waaw loolu daal moom moom luñ ko war a mën a delloo njukkal la te bu ko président defee nag pour man réccu du ci am. yàlla dimbali ko mos ñu ko dégg ci ay détails ba ba yi nga xamante ni ñoom la ko seqaloon 2002 ku ci nekk yaa ngi génn di dëggal loolu noonu dafa mel ni jàngat la boo xamante ne tey tamit sénégalais yëpp war nañ ko am waaye équipe nationale bi nekk tamit jàngat boobu war nañ ko am wane ni Sénégal 2012 li leen 2002 li leen mayoon loolu. bennoo kese la. waa 2002 parce que Lamine nit ku ne dafa am nu la yare nit ku ne nga am ko amee sa tempérament am sa comportement moom tempérament boobu la amee woon yar boobu lañ ko yare maanaam dal teey boo ñëwee ci sa terrain def li nga war a def boo ci paree toog jàpp sa njaamur moom lool la amoon comme am xam ne bu ñu soxla la ci doomu am humilité loolu la doon dundee te terewu kon ko mu doon ki mu doon defe naa loolu nag su amee ak cant lay doon ci nit koo xam ne nii jàpp nañ ne ah euh, na boppam ci loo xam ne nii moom la daan def tey tamit ñi fi nekk tamit loolu la ñuy maanaam war nañu roy ci waa 2002 yooyu parce que waa 2002 yooyu wax boo xam ne Lamine ah, mënatuma leen a fàtte te bëri naa ciy morom El Hadj Ousseynou Diouf Khalilou Fadiga Pape Sarr Tony Silva Omar Diallo Omar Daaf Ferdinand Coly Pape Bouba Diop Pape Malick Diop Aliou Cissé ah Lamine ñoom Makhtar Ndiaye Habib Beye ñooñu def nañ fi def nañ fi lu doy doy waar mais est-ce tamit njukkal bi ñu leen di war a delloo ñu leen koy delloo avant ñuy génn àdduna. waaw non loolu moo war a man keroog wax naa ko Lamine maanaam ñi jiite réew mi ñoo war a fexe ñi nga xam ne dafa am lu ñu def ngir réew mi ba ko ñu di leen wane. dafa am solo di leen delloo njukkal di leen fàttaliku di leen taxawu. en plus Babacar point yi ñu tudd ay Feder boog euh, point bi ñu tuddee ki ñu tuddee Macron ñëpp il est ñu ñu ñu ñu renommé waat ko seen tur yooyu ñu changé. Macron na ko tuddee ci réew mi dara ah loolu fooguma ko nag. fooguma Macron moom xanaa sax ah foo déggaguma la. frère bu ah, moom dégg waaye man daal ñooñu xamuma ay frère yooyu xawma leen man li ma lax sànq laa xam ñi réew mi dafa am. déggoo am na fi kay. yooyu yëpp a ngi fi mais pourquoi parce que na ko dindi parce que tamit sunu réew la te danoo am indépendance ci li wax bu loolu amee nag lanu moom nañ ko téel suñu bopp am nañu ay héros national ci diine am ko ci histoire waa ci li wax parce que Omar Pène noonu na indépendance mooy da ngay moom sa bopp. dem ak sa xel di weeg réew mu amul loolu mooy yow dañu laa not. loolu la Baye Pène woyoon. waaw bien sûr Lamine man damay déglu gars loolu la fa waxoon indépendance mooy da ngay moom sa bopp dem ak sa xel di weeg sa xalaat réew mu amul loolu mooy yow dañu la not yow amoo dara nga weeg sa xalaat pourquoi nañu weeg suñu xalaat. wee li ñu am. nañu jox suñu indépendance wala ñu. moo war am. ah déet moo war a am di waaye ay colonisation yooyu dafa war a jeex colonie colonie loolu yooyu yooyu amul ku ne am nga sa souveraineté nationale am sa environnement am looy dund am sa géej am sa suuf nañ jéem a état bi ñu lëkkaloog Sénégal yi ñu ñëpp ñu nekk benn xeex sunum réew lépp ñu téye ko ah waaw dégg naa ñuy wax loolu ay accord suñ jën yi suñ jën yi lañ bëgg ñu ñëw français yi teg ci loxo. il est temps nag français yi Babacar ñu bàyyi ñu ñu libre. waaw loolu li koy waral rek mooy ñi ñu jiite la rek loolu lépp seen responsabilité parce que comme ñoom ñooy réew ñoom la ñu ñoom ñooy xool li nga xam ne ñun suñu avantage la ñu ñu sàmm ko li nga xam ne nag amaluñu njëriñ ñu bañ koo jox kenn loolu mooy wax ji parce que dañ leen a dénk te dénkaane boo gis nag ëllëg boo rendre fii compte itam ëllëg leen wax ne nag waxuñu leen parce que dañu ñu dañ di ay sénégalais am ci réew mi cër comme tout le monde kon buñ ñu buñ ñu laajee suñu xalaat dañ koy wax mais président Macky Sall encore une fois ñu koy ziar moo gouvernement am naal na ñu gën a xam ne réew mi moom lépp lu def pour jox sénégalais yi seenum réew ngir ñu liggéey moom suñu bopp ci lu ma mën a doon terewul nag partenariat day am fu ne. parce que àddina bi noonu lay doxe léegi partenaire ak France ci liggéey pour réew mi njëriñu wala Amérique wala Arabie Saoudite wala Guinée wala Mali loolu yàqul dara mais lépp na tege ci loo xam ne rek ñun suñuy avantage ci jiitu maa la gën a bég ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez wala sax créer say alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na